kontaan ndax mu ca ebu sa ndeysaan tey waxtaan laa dikk si góor yi xam naa nañ bëgg bii nag. looking and nobody. na musa ya busa haka ala sai bama bama narmelu sa alhamdulillah angale ah, bi xam naa ne yéen ñu ci bëri muy góor ñi da ngeen tey tey danaa sedd suma xoli bañ yi góor yi ma mere yàgg maa mere yàgg maa xame ndig ne du may wax ci ñoom déedéet du may wax ci ñun tey góor ñooñu danañ kontaan boo anyway sa kontaante gi du yàgg ndax danaa dikkati ci yéen beneen yoon waaye tey vidéo bi may jàpp si yàlla rek gëmu suma bët yi sëpp vidéo bi ci jigéen ñi soo lu ma doon wax tey si hàngale mooy jigéen ñi nga xam ne dañ nekk ñeen fukki at ak lu tegu wala jos nekk fanweeri at wala fanweeri at ak juróom nekkatuñ xale daal te xamuñ jëkkër te ñu ngi bugg jëkkër koo xam ne buggoo jëkkër yow taxaw may wax ñu bugg jëkkër laay wax duma de wax ci jigéen ñi lu bëri so <laughs> yéen góor yi nga xam ne da ngeen di wax ne saa yu ne ngay coom bëri ci jigéen si ci góor yi tey xam naa di ngeen ree but soo ma xamee yàgg di ma seetaan sama vidéo yi di nga xam ne sama vidéo yi is all about ma wax leen du ne sama xol bi you know and just the reality with life ok so ñun jigéen ñi suñ demee ba xam ay you know xat yoo xam ne nekkatuñ xale lu si bëri liy tax ba duñ mun a xam love ñun ñu bugg love dëgg sax laay wax de daf si xam ñoo xam ne ñun ñoom dañuy bugg a continuer rek di give up love wala di fo waaye am na si ñun ñoo xam ne ñu ngi ko bugg waaye li ñu dee kale lay lay wax li ñu dee kale mooy dañuy foog ne ñun suñ wonee ne fañ bugg loof kon ñun fañ desperate yàkkamti daal comme ça la ah di nuñ koy waxee desperate si xolof desperate can't remember now doesn't matter so léegi because xam na yeneen jigéen yoo xam ne lañ dund si àdduna ak liñ dund si loxo góor yi tax na ba seen xol bi ñu tëj ko si si góor yi mun nañoo foxee góor yi nii def ak ñoom xam ak ñoom nice time waaye bugguñoo sëy ak ñoom nekk ak ñoom mbala ñenn ñi fo bi sax lañ buggut yëpp lañ gedd rek par jébbal góor yi rek raxasu si ñoom rek sëpp leen di leen seet nothing wrong wi that loolu dara néew si waaye yow soo melee noonu beneen jigéen ji moom dafa choose pour dund mu nekk jigéen ba tey pour xam góor enjoy haduna enjoy rek jigéen yaxam gi ko yàlla jox yow noo koy mën a xasee ci loolu moo ma jaaxal di ko tuutil di ko xas di ko tànci ne lu tax melut ni yow buggut a mel ni yow so baal nit ki mu def lim xam yow nga def li nga xam wala li ngay forcer sa bopp pour xam ko ndax mbugeel dey bitim réew fii sax xam na tubaab yu bari yoo xam ne fañ ko xam te bugg ko te du ko dund xam na tubaab yu bari yi ko xam te bugg ko te xam ko di ko dund kon nag du ne tubaab yi seen bopp si ñoom nga jëlee sa sa sa give up mbugéel gi xam na tubaab yi koy def waaye xam na tubaab yi ko yu si bokkut de du bitim réew ñëpp koy def de kon nag yow boo ko cuusee that's fine ngay foog ne fa noppale xa ah, dina amul noflaay noppale hut de fa bëri fitna ba bugga dee toog yow kenn man ren gii feebar yi ma fi feebar laa laa yaroo man kenn jondong feebar yi ma fi feebar ren ñetti yoon maa ngi feebar man kenn nag suma doom yi duhut ne feebar bee tax ma gën a tëb léegi de jëful rek ne may xam nit no balaa feebar bi sax man nii laa mel suma vidéo yi the whole time xam ngeen ko waaw te moo commencé vidéo tey ñeenti xat xamoon naa fi relationship si diggante bi ba ma tàmbalee vidéo yi xees fa xam ku ma doon waxat gannaaw gi si la ma borom takk juróom-ñetti weer sëy bi xam na ko Gambie la ne woon ma ne fii bi jeex la ko tax a jeex yëpp jarum ma di ko wax boobaa léegi war naa jege ñaari xat su ko matut kumba mu ne mat na ñaari at de waaye maa ngi xamaat nit ku may waxat boobu ba tey maa ngi wax ak nit abaat wan ya léegi maa ngi wax ak beneen góori Gambien soo bëgguma nekk di give up pour wut love parce que xam naa ne loof laa buggu soo xamee love su baaxul tamit ngay trayaat gis nga nag ñi xam na si ñun ñi nga xam ne dañ bëgg love te xam loof waaye xamuñ loof right now parce que fañ xam façon ngi love bi ñu bëgg fañ xam góor gu ñu yelloo fañ xam góor gu ñu disaaf parce que ñun xam nañ ñun façon ngi love bu ñuy joxe te lii xam na si ay góoramit xam ne ñun façon ngi lox bu ñuy joxe te xam ne ñun góor gi ko yelloo góor gu baax gi ñuy yelloo moo tax suñu xamee góor gu bon ñuy tray tray mu tëx fa ñuy ba te suñuy hutit fa ñuy hut góor gu ñuy yelloo yéen nag su ngeen gisee loolu ngeen foog ne rek yow bëggoo loof yow ngay wax rek wala yow kay yow xamoo loof lii nii nii nii déedéet loof rek ku ne mën na koo xam golo yi sax xam nañ loof moo tax ñuy jur doom waaye loof bu baax bu dëgg bu gore biñ bugg moom lañ xam ñenn ñi ci ñun xam na si ñoo xam ne nag fañ ko xam dëgg ba far gedd loof yépp rek foog ne nag ko mën a xam loolu nag laa dee xeex man xat yi yépp saa wu may wax loof noonu laa dee waxee boo ko nit ñi nga xam ne gedd loof ngir loof bu baax biñ bugg mënuñ xam ba gedd loof ñooñ laa dee waxal di leen waxal pour ñu ñàkk a gedd nañ forcer rek di try dinañ ko xam loo fa mel ni liggéey bu baax yéen nii ngay try fu ne nga apply fu ne nga fu ne nga try feeg ba nga koy xamee yéen nii nga xam ko nga ñàkk ko ngay tryaat def leneen xaa dina noonu la di du wut ne it booy wax loof rek yow ngaa bugg loof torop wala ni déedéet ni ku nekk façon vidéo yi ngay def la man dama dund àdduna Afrique dund àdduna fii suma expérience yi àdduna bi laa dee bugg a séddoo façon vidéo yooyu laa dee bugg a def léegi nii nag mun naa def current affaire wala ma def yeneen vidéo you know saka temps yi ma daan def politique suma vidéo yi lu ma expérience ak lu nga xam ne loolu laa foog ne ñun loolu lañ war a dundee nit ku ne li nga foog ne ñun loolu lañ war a dundee fa xuuteeg sa morom li foog ne ñun jigéen ñi loolu lañ war a dundee loolu rek laa dee wax fa ni nit ñi dee def make up wala def leneen rek loolu moo leen gënal loolu la ñuy def ma ni li ma gënal ak li ma bugg ak li ma foog ne moom lañ war a dund xam jàmm loolu laay wax tas all yow su fekkee ne xam nga jëkkat wala xamoo jëkkat wala yow daal waxi loof sax soo ko déggee wax tuur bi rek fa lay métti sa dënn bi nga seet beneen vidéo seetaan ko saa woo gisee may wax loof wutil keneen wutil beneen vidéo ndax man dama dee wax différente waaye soo waxee ne rek nit ñi mel ni man lii soo gisee ma di ko wax du man man faalewuma lu tal ndax si vidéo yi laa ne di wax lu ngeen ma waxee baax na du man si sama bopp si ci nit ñi laay wax everyday seen jikko yi laay wax everyday te boot li tax may wax mooy yeneen jigéen ñi nga xam ne fa ñuy rusa wax sax ne fañ war a xam pànn bu xees góor su leen di cee sax fa ñuy rusa nangu fa ñuy rusa try sax wala wax seen xarit yi wala wax seen mbokk yi ne xam na ko ma bëgg wala man de maa bëgg a xamaat wala nangam ndig seen xarit yi wala nit ñi ñoo leen di ree di leen tuuti naa la yow moom fu mu toll rek yaa ngi wax ak nit moo kii kan laati moo ki ngay waxal nii ko keneen ku xees la yow moom bu seet rek yaa ak ku xees ba nit ñi jéggal leen nit ñi nit ñi suñ newut di wax ak ku xees nu ñuy xamee ku baax ngeen a expect nit ñi xam génn góor guñ robi goo xam ne baaxut guddi baaxut bëccëg rekk nit ñi dal di koy jël ngir bu ko nit ñi baxee ngi yéen ngeen nit ñi fañ bon jéggal leen ñu xam naa ne nag ñun suñ askan wi lu leen ñu xas boo dee sax ñu xas la ne waroon a dee li lu tax ngay dee nga ñàkk fayda te dof <laughs> subhanallah <laughs> xaste yi ndig buñ dee gune xaste yi ñu suñu waajur yi xas xam naa ko moo tax man xaste yi safatut ma waaye yeneen nit ñi nga xam ne xaste yi fa leen di safatax may wax de fi ne jigéen ñi suñ waree xam ne di taraay di wax ak góor gi doxut jigéen ja taraay wax ak geneen góor doxut ah ba muy gisee góor gu yaakaar ngeen di ko xas si loolu mu ngi taraay de mu ngi bugg taraay pour mu mun a xamaat jëkkër du ngeen ko baam fi mu ne su fekkee ne comme taxaay ngeen ne ko ko yow ana nga doon waxal taxaayale ne le yow moom kii keneen ku ees la xanaa hey billaay yow Ami Joob yow hey billaay diw yow saa yu nekk rek nit ku ees oh my god what I'm saying there is important I have to say this and then before I continue the Wolof what they also do is in my community when when the woman is trying to find somebody you know how when you're trying to find love you sometimes talk to different people before you meet the right one they're like Amie Jobe for example if it's me oh my god is this a new person again you're talking to different from the one you telling me ah you again new person all the time oh my god you cannot make up your mind this is your life You cannot just the, next person come, you like hand them over to your everything and take them 100% and and just marry them and just even if you're not happy with what they're doing and stuff, you just go for it because people will insult you when you break up with them, when you're trying to get to know them. I know our community, we insult each other for everything. This is how we are because of the way we have, been raised. That's why the <laughs> when you're talking to someone, love is like a job, like I said. You keep trying until you find one you're happy with and comfortable with. If not, you change it. So leave people alone. When you're doing this to people, you're making people that are, not stubborn like Ami Job to just give up. They don't want you to insult them for trying to find what they want. Leave them alone, please. Stop telling them, oh, you have a new person now again. Oh my God, what about the other one? Oh my God, this, oh my God. Like you're making them feel bad for trying to wait for the right partner that they want. When they're talking to someone, you're not the person. They know what they see and how the person is treating them, if they're happy with it or not. Not you. They cannot tell you all A to Z what they've them alone. If you cannot congratulate them, and tell them that it girl keep it up don't settle for less if you cannot tell them that don't tell them oh no again you finish with that person <laughs> hey, hey, oh my god you're not serious you just joking hey. us Africans what is this why we have to turn everything to an insult this is damaging that's why lot of women just close their cells and give up They get insulted for trying to find a man. And they don't have the man, you also insult them. You want them to be in the relationship when they're not happy. Huh? This is not fair. The women deserve happiness. Leave them alone, please. Back to the wall of part again. li ma doon wax foofu mooy jigéen ñi suñ buggee hut nit ñu di la xas di la xas ba far nga gedd nit ñi ñëpp noppalu ndax nit ñi boo leen di wut ngay war a def ndànk di taraay di taraay ba ba ngay tasee ku baax koo xam ne déggoo nga ak moom nim lay wonee mbuggeelam ak yow ni nga ni ngay wonee mbuggee déggoo na parce que nit ku nekk ni muy mbugge ni buggee ak keneen ki ni muy buggee dafa wuute soo yéen nii soo tasee nit su fekkee ku baax la sax xamut nu mu lay buggee xamut yow façon mbuggeel bi nga bugg du ngeen mën a ànd te su boobaa su ngeen demee ngeen dina di xulóobul bu set rek léegi su nit ki demee nit ki mu gis ne lii xam na jikko yu bari de yoo xam ne yii walla bés particulier di jikko de nit ki xame lu may sonal la ëllëg si réinsoncé si mu gedd baay loo ko si xasee kii ku xees la ngay waxat oh my god yow de saaw ne ngay xam ku xees oh my god yow ngaa bon baal nit ki mu wax ak different nit man lu ma bañ de mooy nga xam ni ñoo xam ne nii ñu noo danga leen di nekk di use wala ñu lay fenal wala ñu lay use yow di tëddoog yow wala di lay use di jël sa xaalis yi wala staf waaye su dee ngeen di wax rek pour jéem a xamante dara loolu dara néew si baxal nit ki baxal jigéen ñi ngeen di xas su jigéen ñi cagatoo ngeen jigéen ñi fañ cagato su jigéen ñi teg seen time di def ndànk di di wax ak góor ba taal ba tasee góor gañ xamit góor gañ bugg kañ yaakaar nga ne nga ne jigéen jafa bon fa war daal golo gu ñëw rek su ko traité baat sax mu jël ko jigéen ji lii àddunaam la moom mooy sonn su neexee góor goo xam ne xamut nu mu koy buggee xamut valiram mënu koo apprécier jigéen ja mooy sonn tasu tasaatee yaa koy xas di séem yow kon nag yow booy seetaan vidéo bi te nga doo jigéen bu rusa bu rusa hut hut hut nit ko bugganteel bul faale it nit ñi lay xas soo buggantee ak nit nga gis ne kii yaakaaroo xamoo si moom yaakaar baal ndax boo si duggee lu si bari jikko yim lay woon tey du ko wecc de xam na si ñoo xam ne si dañuy wecc si la leen takkee waaye ñu si bëri duñu wecc fay get woos waaw dafa xam si suñ góor yi ñoo xam ne dañu am xol bu dëgër bu soxot te jigéen gisuñ ko pour ne jigéen gi sax jar na pour ñoom ñuy wecc yeneen jikko wala jar na pour ñoom ñu won ko mbëggeel wàccee seen bopp déedéet façon yooyu boo sëyeeg ñoom yaa fay dee duñ la faale fañ lay def mbindaan ngay togg di yàq ñu di la nangamtaan di la sànni bu ko nangu de toogal ba gis góor ga la ko jaral ka nga xam ak moom yaakaar ka nga xam ne hundred percent sa xol bi daal na ne su la takkee doo sonn nga sugu see dugg waaye nag bul ña bul toog a toog a toog a toog ba tax doo xut déedéet su la góor ñu approché na bëgg na la jox ko chance nga try bul def su doxul rek nga ne ah man moom saa ma try góor ñi duy dox xaaral ma bàyyi déedéet keep try di keep try di keep try su yàggee dana dox mbugeel rek yomb na mbugeel bu baax moo jafe moo tax yéen dama leen dee wax saa yu ne yéen ñi xam mbugeel bu baax téye leen si fukki loxo ak juróom ngeen respect borom def ko propre mbugeel mbugeel mun nga koo xam bu baax sax waaye soo ko toppatawut doo xàppe doo xam nooy waxee borom boroom du xam nu muy waxee yow boroom du la won love yow doo ko one love ngeen di defante si néeg bi 24 hours loolu ñàkk mbugeel sax ko gën ku ne si façon ngi mbugeel boobu nga lijjanti seet noo koy régler doon nit dal def seen bopp nit enjoy ko life is too is no point nga ko wala nga ba loo fay nee rek di di di fukki at later di same ne fa di defante di xol bi jëf-jëfi anoo another video waaye vidéo bi daal lu ma doon wax mooy ñun jigéen ñi nga xam ne dootuñ gune lii gën a tax ba duñ dee xam nit mooy ñun ñu si bëri ndaxati àdduna la ñuy jël gàddu ko torop torop torop torop torop duñ duñ nangoo jox beneen góor chance pour nag ko ak bugg ko loolu daf dee nekk problème bi beneen bi mooy yeneen jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk suñ xat yi dañ ñu dee wax ne ñun nañ war a dañ war a bàyyi di wut mbugéel ñun nañ toog noonu rek ñu enjoy a góor ñi mbala ñu just travel the world tukki enjoy rek enjoy life rek wi doon need man ni duñ góor ñeneen jigéen ñi dañu dee forcé pour ñuy xalaatee noonu ak société bi soo waxee mbiri ngaa bëgg na walla ngaa wala noppeel wala nii ñu naan la yow ngaa desperate ngaa niidi ngaa lii ngaa lële di la xas soo léegi yow soo xamul fayda nag ngay rus rek daw làqu yaa fay dee màggat kodolu sa sa lal ba dee booy xamee téeméeri xat yàlla nanga ko xam kodoloog sa kopof tiiba dee ñetti fan kenn du ko yëg xet gaa leen di xee boo xamul saa subhanallah ne mu si caaxaan de ngay kodolu dee ni jaalaali wow yow kenn soo guddee fan ah doo xam ko màggatal de xam naa ne dee kenn xamul kañ la mën nga am jëkkër mu dee waaye jëkkër sa boo ko xamee mu dee te yow nga doon jigéen ji doon nit fu jaar xam geneen góor gu la bugg a takk sànni la xal xayri nangul xal xayri ga ndax loof dafa am lu muy def si xoli nit yàlla moo ñu bindee noonu nit ñi moo tax ma doon wax xaj yi nga xam ne tubaab yi fañ leen di loof di bàyyi nit ñi xaj yi yàgg naa leen di wax de <laughs> tubaab yi loof gi leen yàlla woon ne moom lañ war a jox nit ñi yàlla bind leen noonu moom la ñuy jël nag gedd nit ñi xuus nit ñi ndax nit ñi tooñ nañ leen wala def nañ leen lu ñu leen war a def rek ñu gedd àddina si yëpp jox loof ba yépp a xaj yi ba far ñeen nit ñi tëdd xaj yee ka defee waaye tubaab boo ci seetlu muy jox xaj loof di tëdd xaj ba tëddut ak xaj ba defut ak moom dara di ko loof natural rek xamal ne loof ba muy def noonu bu ko defoon ak nit ñi xam ak mu ñoom jàmm. back to the dogs in English I forget to explain this part about the dogs. any person that have the dog and you don't sleep with them you're just a good dog lover the way you love the dog if you love the human beings half of that they will love you back more lot of them will 95% or 99 will love you back more. So I just have to mention that I forget to explain that with the dog part. Now back in the wall part before I close this video guys. yàlla fa ñu bind ñu war a jël joxe loof jël loof tubaab yi sax gëstu nañ ko ba ñu ne ku ko du def ngay gàtt fan ku ko xamul loof bi nag li ci baax mooy tubaab yi wax nañ ne du duhut jos loofin góor ak jigéen lifin loolu moom baax na pa neex na ndax loolu fa baax si yaram affaire bi nii loolu rek wér gu yaram boppam la waxuma la nga di ko def ak siddaade déedéet koo xam ne dara jotu ko laa wax normal nit koo xam ne yaramam waa ngi healthy wér ngeen di def affaire bi nii fa xam wér gu yaram gu muy def si yaram goo xam ne tubaab xamul garabam waaye gannaaw gu bu loof baaxee ci ci fànn googu loof fa baax tamit ñu ne pour nit ki ngay jox mbugéel di la ko jox suy sa sista la sa broda la sa jigéen sa càmmiñ wala sa yaay sa mag sa rakk sa xarit ku mënti do sa doom yi ku mënti do fay tax nga gudd fan ñu ne tubaab yee ko gëstu ba wax ko waxoon naa ko ci vidéo du ma ci caaxaan de xam ngeen nag ñun nit ñun jàngu ñun ñu ci bëri jànguñ ay waa ñaana fara yoo xam ne leen sàkki dimb rek lañ xam xamuñ ci àdduna doomu adama njaay lenn loof fa am njëriñ si yow ci sa bopp kon nag boo xamee loof ko xam ne ku baax la téye si téeméeri loxo respect ko won ko loof waaye nag yeneen nit ñi ñoo naqadee loof ndax ñoom ci seen bopp ñoo bëggul nga loof leen soo leen di won loof di leen wen kee ñu ne yow danga nga niidi yow da nga desperate yow saa yu nere ngaa bugg ngaa bugg a nekk di wax ak boroom wala yow saa yu nekk rek ngaa bugg a nekk di you te soo leen baxee tamit ñuy ñuy complain yéen lu ngeen bugg yéen ñenn ñi ci yéen. waaye society daal daf ñu def ñu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi xaw a mag si nii pour ñu bàyyi loof. ku fi society ñàkk loo fayda ba nga ba loob yaa ko yëg yaay kodalu sa lal ba dee boo xamee téeméeri at on your own waaw te bu dul lool sax yaay tëdd ay guddi sedde bile nga tëdd ay guddi di kodalu yow kenn si sa mbàjj gi takk sa mbàjj gi mbala sa mbàjj gi takk la man de sama mbàjj gi takk na ma ay xat waaye jëkkati mbàjj ndax boo xamul jëkkat tout choice ngay xam ngay i da xam jëkkati mbaaj ji walla nga xubbi sa bopp si yeneen góor yi di la nangam man nag say ma xam jëkkati mbaaj góor yi duñ nekk di ma nangam lu ma doon wax rek mooy société num ñuy def loo ñun ñi nga xam ne dañ xam dañ xam xoli loof te xam xoli mbugeel te mën a bugg duñ dee nangoo toog si na bu bon muy góor mu jigéen léegi nag dafay tax ba suñ génnee suñ xol bi moo dee wow ñu foog ne rek ak ah, xaar ma noppaliku parce que man doo mun a xam ku baax déedéet dee try di nga xam ku baax bul foog ne man maa màggat xaaral ma noppaliku xam naa juróom fukki at wala xam naa lii déedéet màggatoo ngaa bugg a dee déwén ndax ngaa bugg a dee fukki at si kanam kon nag màggatoo gannaaw fukki at si kanam sax buggoo a te yow mën ngaa dund ba xam téeméeri at ñii xam téeméeri at gënuñ la xamoo ñaata xat nga war a dund kon nag bul wax ne ngaa màggat nga give up demal nga nga nga enjoy loof give love try soo xamee ku bon bu fa toog di dee man duma ko def waaw ndax soo déggee ñu la love ku baax te gore te mun a wone loof kooku nga ko war a mun a enjoyal su dul lool nga fay ne turi loof di depress di di di di saat soo ko mënee def def ko man mënuma ko soo ko mënee nag def ko waaw waaye soo géddee loof loof fa xam lu muy def si xoli nit di ko def si jëmmi doomu aadama njaay soo ko géddee danga sonn de nañ waxante dëgg waaw bu ko gedd boo ko xamee toppatoo ko fonk ko wonal borom ne ko yëg nga ko wonal borom sa mbëggee ak moom fu ndax nit ñi bari nañ borom cuus la yow nga war a sant yàlla waaye suñ toppee àddina si nim ñuy defloo jigéen ñi àddina si yu bëri léegi dañ gedd loof ba pare nag topp góor ñi di di naan fa ñuy use góor ñi góor mënoo koo use moom moo lay use aka jos nekk góor digas di di jéem a xut xalal ci góor ñee ka defi yëf nañ def suñ bopp nit rek salwi ñu xam jàmm li ñu yàlla def jigéen waaw nga dallu des sa bopp nit nga gëm loof ne xam na nga nekk di try su doxul sax ngay try ba yàlla may la góor ga nga yelloon ngeen dund si jàmm nga enjoy nga toog waaye soo neexee di gedd loof di këlëñ këlëñ ka def yëf ngay sonn de soo neexee di naan ngay nekk góor di gaa ka def yëf ngay sonn de <clears throat> def sa bopp nit def jigéen ji la yàlla doo rek moo lay may jàmm nga xut yàlla dina la may góor gu baax gu gu la yelloo yéen góor ñi dee toroxal jigéen nit yéen a tax jigéen ñi mënuñoo xam góor de yéen seen vidéo ngi dikkaat de danaa leen defalati vidéo fan yii de def leen seen bopp nit yéen a tax ñu di leen gedd fi mu di kële ñu di di takk suñ mbaaj yi mbaaj yi diñu takk mbaaj ji mënoo koo takk mu da sa jëkkët ngay sonn jëkkëti mbaaj yi yile yéen a ko waral si si si seen jikko yu bon yi ngeen ñi dafa tax ngeen nit ñi di def ni la de xàq la nag def leen seen bopp nit waaw man nag lii laa bëggoon a wax tey salaam fan yii maa ngi ne di wax waa vidéo yi àngale rek waaye jéggal leen ma danaa dikkaati suma vidéo faana faana yi xolof yi maa ngi bugg def comédie faana fana sa géej naa ko ne namm naa ko so loolu laa bëggoon a wax tey pour ñun jigéen ñi nga xane ne ñu ngi bugg a xamaa jëkkër góor ñi boo gisee ñuy takk gune yi ñoom ñu ci bëri parce que ñu jigéen ñu mag ñi ni ñuy naqadee deret te bañ a wone loof moo tax xam na si nag ñun ñoo xam ne fañ neex deret te fañ mën a wone loof fañ xamul góor gu baax rek waaye na si ñun ñoo xam fañ naqadi deret mënuñoo wone loof that's the reality ngir coono àdduna metitu àdduna lim ñu def ak fitnaay njaboot ak different problème moo tax ñu naqadi deret ba mel ni ay gaynde yu gaynde yu sibbutu nag toog di karkari gaynde yi si butu yile nag buñ ko duxee haa <laughs> aka metti ngay jëf-jëfi bañ robi la rek balaa caag nañ dal def siñ bopp nit def jigéen jiñ yàlla dox jiñ yàlla def xut góor gu baax toog ak moom jàpp si yàlla waaw lii de laa ci xam man moo tax nag man ni may waxee loob ak ñi ko ni ko ñeneen ñi di waxee fa xuute ndax man ma koy waxee ni ni nim ñëwee ci sama xol bi ni ma ko gisee ak ni ma ko xamee waaw koo xam ne nag fa la naqat yi wala xàndoo ci ah baal ma ak ma man de lii suma xalaat rek la waroo koo def defal lu la neex rek jërë ngeen jëf si vidéo yi ngeen di seetaan dinaa leen gis beneen yoon and yeah thank you watching <laughs> so what I was saying there is if, any of you don't the video or thinking the way I'm saying things is wrong and stuff, or I also think like that, think and how I see things and how I want my own life. That's just what I'm saying. That's all. You don't have to do it. If you think it's not going to work for you, do what's work for you. Okay? But thank you for watching, guys. I'm going to see you guys again soon. I have to end the video now. I really meant it, Ami Jobe. Oh my God. You meant it. You want to marry me? Keep it up. God bless you. Thank you, Lamine. I will like to marry you with care and love. <laughs> Up to the next wall. Awesome. Amazing. I'm stick with you. <laughs> you stuck with me stuck with me oh i'm dropping my phone right guys i'm gonna see you guys again soon thank you for watching bye <laughs>